quand même ci sujet bu am solo di les pathologies oculaires Mame Khady bonjour bonjour euh, soxna Aïcha maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax bi gis naa la sa jàllaabe bi <laughs> moom danga ma koy jox waaw da lay seere surtout ci suuf daf <laughs> <laughs> yàlla baax na. di di di ziar sama doom naa la ko koy jox nuyu Seydina Omar ak euh, docteur Sarr <laughs> <laughs> ah, tey ñu fas yéene waxtaanee peut-être xëy na euh, buñ ne pathologie oculaire peut-être ñu bëri duñ lépp mhm. luy aju ci ay feebar lu aju ci wàllu bët tey ci lañ fas yéene waxtaanee. muy jàngoro jàngoroy bët tey lañ fas yéene statué ñu euh, fas yéene dalal tey docteur Boubacar Sarr. Mhm. médecin ophtalmologiste la. Mhm. mais mon oncle mon ami à moi. <laughs> docteur Sarr bonjour. bonjour Aïcha. ça va bien ça va bien merci ça fait longtemps quand même. oui oui ça fait un bon bout. Eh, man dama la bëgg di seet si nag ndax bu ma la ndax mu ngi poussé. Ah, dama bëgg bu bàyyi ba màgg rek mu muural la ko. mu ñëw sëy voilà c'est ça. donc takkaloon na ma ci morso <laughs> bu rëy sax. takkoon nga si morso morso bu rëy rëy maa ngi koy maa ngi koy kii maa ngi koy yar. pour indil la ko après incha allah. alors docteur on va parler santé aujourd'hui léegi léegi ak moom incha allah. Mm-hmm. madame santé kii toujours malade. internaute yi tamit. mais du noonu sax de nit ñi fréquenté nit ñi fréquenté hôpitaux yi di fréquenté médecin ñoom chaque jour dañuy feebar. dañuy feebar bizarrement. <laughs> te docteur en sait quelque chose. yow xam nga si dara soxna Aïcha xam nga si dara. doo xam sax lay feebar lool. alors moom xam tey nga indi sujet bu am solo quand même. Mm-hmm. muy jàngoroy bët. Mm-hmm. jàngoroy bët nga xam ne nii tamit niñ koy waxee saay su nekk ay Aïcha bët mooy nit. Euh, bët dafa bokk na ci euh, partie wu corps boo xam ne nii euh, lu am importance la moo tax nag ni ki tey ñu ne dinañ invité ab spécialiste mu ñëw ci yenn yi nga xam ne nii mooy ay jàngoor yi nga xam ne mën na indi jafe-jafe ci wàll bët. ak mm. ana naka la ñuy def ba daal di mooy yu ni mel. Mm-hmm. ci suñuy dund yi ñuy jëfandikoo ak lo ca aju moo tax ni ki tey nag ñu daal di invité ni nga ko waxee docteur Boubacar Sarr di médecin ophtalmologiste. Mm. docteur gannaaw bi ma la nuyuwaat ñëwaatee dama euh, bëgg rapidement rek ñu ñëw ci yan xeetu feebar la ñuy gën a nemmeeku ci wàllu bët fii ci Sénégal mu sonal population yi. Ah, jërëjëf euh, soxna si jërëjëf euh, Aïcha maa ngi leen di nuyu di nuyu seen téléspectateurs yi. Mhm. di am toujours mbégte di ñëw fii parce que. ni ma ko doon waxee rek fajkat yi dañuy laaj ñuy waxtaan ak askan bi mhm. te opportunité boobu ngeen ñuy jox lu am solo la Euh, damay faral di wax ne wér yaram capital la ci capital nag moom dañ koy sàmm dañ koy préserver c'est-à-dire alal la alal dañ koy préserver te nit ki nag pour mu préserver ko il faut mu xam li mu yor lan la euh, su dee damay dellu siwaat ci question bi feebaru bët yi dafa am ñaari mbir yu ñu war a considérer yan feebaru bët ñoo gën a bare ñoom la ñuy gën a gis ak yan feebaru bët ëpp ñooy indi li li ñuy ragal ñun mooy silmaxa c'est-à-dire cécité perpétuelle su dee feebaru bët yi gën a bare la bu ñuy set suñuy statistiques yi yu ci bare ay ñuy wax ay wànneent ay yenn kératite yeeg yooyu ñoo gën a bare mais li ñu war a toppatoo mooy feebaru bët yi indi silmaxa yooyu mooy suñu grande préoccupation parce que li ñuy wax mooy boo gisee fukki nit ñu silmaxa juróom-ñett ñi mënoon nañu bañ a egg foofu parce que li leen silmaxaloo feebar la yoo xam ne mën nañ ko faj wala mën nañ ko moytandiku donc looloo tax jëkk ba dañ daan wax lutte contre la cécité dañuy xeex silmaxa mais après ñu rendre compte ne bari na ñoo xam ne am nañu pro même bu ñu silmaxawul am nañuy problème mu bët yu leen tere am ay activités socio-professionnelles normal parce que bëtam gis lan rek lay jëriñ nga mën a dox say soxla wax say truc parce que fonction de relation bi mu am ci sa environnement social environnement physique mooy jox important moo tax kii ni bët mooy nit dafa mel ne boo ko amee rek bokkatuloo dootoo communiquer ak sa environnement dootoo kii donc te lu am solo la ci ci ci ci donc bu ñuy seet feebar yi ëpp li ñuy indi silmaxa euh, dañ ci lim lu mel ne lu mel ne cataracte xëy na dañ ci dellu si Euh, mais dafa changé nag léegi léegi mënoo wax feebar yu mel noonu te doo ci boole lu mel ni feebar bu ñu naan glaucome te doo ci boole feebar yu mel ni diabète te mm-hmm. doo ci boole ah. feebar yu mel ni hypertension te yàlla def na tamit ne seetlu nañ ni suñu réew yi li ñuy wax espérance de vie bi dafa xaw dafa yokk cest à dafa bari léegi nit ñi dañuy gën a jëm mag donc yenn feebar yu mag yi nga xam ne ñun mañ naan jàng dañu daan wax naan presque amu fi léegi dafa commencé li bëri li di wax par exemple dégénérescence maculaire liée à l'âge et cetera et cetera donc yooyu yëpp euh, je crois mën nañ ci waxtaan uh-huh. parce que feebar la yoo xam ne c'est vrai dañ ko war a faj waaye nit ki ñi muy dal tamit am nañ ci yenn responsabilité pour ñu mën leen jël en charge ba ñu bañ a egg fenn fi ci ci ci uh-huh. ci stade jabet ak hypertension. ak diabète hypertension mu mel ni ne kon beneen jàngoro buy indiwaat beneen jàngoro la. bari na bari na parce que bët dafa am ay cër la mu nekk ci nit. am na ay feebar yoo xam ne feebaram la c'est maladie qui lui sont propres mais ak bare feebar yoo xam ne day feeñ ci bët waaye du feebaru bët. dama la cité diabétique hypertension rek bare na ci feebaru rhumatisme yi yenn feebaru deret yi yenn feebaru yooyu day génn ci bët mais du feebaru bët. c'est comme par euh? hypertension yaram. waaw wute nag tension bët. d'accord tension oculaire. hypertension artérielle comme diabète. Mhm. dafa am yenn saa yi muy feeña ci bët. ba mën la indil silmaxa ci. feebar yi gën a mel nii di silmaxa ci la ñu bokk. surtout lu mel ni diabète bi. loolu tax ñuy wax éducation diabétique mënul toog at te warul dem seeti kiy faj bët même su dee amul benn problème. Mm-hmm. bët bi waaw warut ko nekk ki mu am tension kazalika. Mm-hmm. yenn feebar yi nga xam ne nit ñi dañ dañ koy am ci seen articulation yi seen ndigg yi seen tànk yi wala yooyu tamit yenn saa yi day répercuté wu ci bët yi. Mm-hmm. bugguma dugg ci détails yi naan la. polyarthrite rhumatoïde wala maladie de Sjogren dafay compliqué mais dafa am mhm. daal feebar yoo xam ne day génn ci bët mais du feebaru bët mais loolu yëpp tamit da dem ci kooku war a saytu mu saytu ko mhm. ne la yow lii ñun dina am malade boo xam ne danga koy terminer médecine interne mhm. ko xam ne problème bët bi mi ngi fi mënut mais li koy faj mooy mu def médecine interne ñu jël ko en charge et cetera et cetera par exemple par exemple exemple la ci <laughs> ci ci ci ci li ñu mën a wax. mais docteur ci maladie oculaire yi aussi gis nañ ne que euh, on n'en parle pas très souvent mais chaque année des milliers de personnes lañ leen di opérer à cause de de cataracte. Mm-hmm. on n'en parle pas très nag c'est boo jëlee réew yi mel na suñu réew yi c'est la première cause de cécité moo jëkk muy indi mm. silmaxa ci mm. réew yi mel na ñun simplement parce que amul faj parce que cataracte yi ëpp li ñuy wax c'est lié à l'âge cest nit ki muy jëmee mag la te amul dara nu ñu prévenir vieillissement c'est pas possible mm-hmm. donc mm-hmm. li ñu war mën a li ñu war a mën a def mm-hmm. rek mooy préparer wu pour ñëpp ñi ko soxla ñu mën leen ko jox c'est-à-dire ñu mën a opérer maladie te benn faj rek la am du tuufaay du ay doom yooyu naan du piqûre dañ koy opérer rek pour mu mën a dañ donc léegi li ñu war a am dispositif yi pour que malade yi parce que dañuy gën a bëri si nit ñaa ngi gën a vieillir léegi soixante ans c'est rien du tout mm-hmm. soixante dix ans c'est rien du tout mm-hmm. pour ñu mën a wu set naka la ñu mën a en charge nit ñi mm-hmm. je crois que la santé di liggéey Euh, je ñu ngi ci aussi. tey jii lan mooy les premières euh, les premiers euh, signes yoo xam ne ni d'une maladie oculaire tey jii lan nga mën a gis ci ay signes ci say gët yoo xam ne nii dina la war a alerter. non premier signe ça dépend ci maladie yi mais dafa am ay signes li ñuy wax euh, xam nga ñun bu ñuy jàng dañu naan signe fonctionnel signe physique signe fonctionnel mooy yi nga xam ne. malade bi moom moo lay yëg. moo wax li ñu ciy gën a gis mooy gis-gis bu wàññeeku. li mmh. dina ñëw sama gis-gis dafa wàññeeku wala ñëw mu ne la sama dafay xasat. Mmh. yooyu ay signe la wala hmm. su dee xonqaay bi la sax dañ la hmm. koy dañ la koy wax xëy na souvent malade bi du ko gis hmm. boole ci ak yeneen yenn saa yi nit ki day ñëw ne la du ma supporter lumière ça dépend ci feebar bi su man daal su ma demee ci lamp yi dafay xaw a kii am sax ñuy toog naan la bu bu xawee ndëm rek dootuma gis moom la ñuy tuddee héméradopie signe yi daal bëri na nag loolu it ci ay signe la bët yuy jooy ku ñëw ne la sama bët day jooy la koy jëkk laaj benn bay jooy wala ñaar yee jooy mhm. parce que am na situation yoo xam ne da ngay gis ne bët bi day gën a jooy mhm. ay li ñuy wax démarche la boo xam ne doxalin la boo xam ne dina yóbbu médecin bi ci conclusion yoo xam ni dina mën a jël bu baax en charge malade bi mhm. ndax euh, tey jii nii souvent on a l'habitude de le dire nga gis benn xale wala nit rek bëtam yi di faral di jaune wala marron nga foog ne bëtam baaxul est-ce que santé wu bët dafa lié ak euh, couleur bët am na ci ay signes yoo xam ne mën nañ ko euh, mën nañ loolu mën na nekk c'est-à-dire que feebar yoo xam ne day feeñ ci par exemple couleur u bët damay wax ñaari yoon parce que yow da ngay léegi couleur u bëtu café yi mais kooku naa ci dellu si mais li gën a fës ci nit ki bu amee lu mel ne par exemple pays ñu xam nañ ko mooy bët yu jaune xam nga du feebaru bët mais bët yi dañuy jaune yu ci ëpp feebaru foie la feebaru deret mais bët yi dañuy jaune am na ci ñoo xam ne bu ñuy def lu ñuy wax cyanose bu ñuy amee yenn insuffisance c'est-à-dire yenn insuffisance respiratoire yi seen bët ci day bleu lu ñuy wax yenn cyanose yi mais yooyu ay cas euh, exceptionnel la mais pour dellu si ci bëtu kafe yi bëtu café liñ koy wax ci xale yi lañ koy gën a seetlu en général yenn saa yi nag dina la topp ba ñuy mag hmm. ay feebaru li ñuy wax conjonctive c'est-à-dire bët dafa am benn pàcc bu ñu naan conjonctive bu hmm. et cetera ma dugg ci détails yi. Mhm. mais kooku buy am inflammation yu gën a bare. nit ñu ñuul ñu mel ni ñun nga xam ne dañuy am beaucoup de mélanine pigment mhm. day am toujours migration pigmentaire. Mhm. feebar yooyu day nekk ci xale souvent day ànd ak ay xasat et cetera bu demee ba feebar bi wër nag. pigment bu ma nga fa mélanine ba ma nga fa dootul demati. loolu la ñuy wax bëtu café. mais en général lu ci ëpp du feebar bu grave lu ci ëpp buy xale yi di màgg dina deñ. Uh-huh. alors ñu ci gën ragal sax ñun mooy traitement yi ñu koy defal parce que uh-huh. boo ci acharné wu trop c'est là où tu peux créer des problèmes parce que uh-huh. am na ci médicaments yi nga xam ne qui son très efficaces mais qui peuvent aussi causer beaucoup de dégâts lu mel na corticoïde léegi nag euh, comment faire naka lañ mën a def ngir euh, prendre soin ci suñu ay bët euh, yan mooy loo xamante ne bi war nañ ko éviter mhm. parce que souvent même ci li nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo même les lunettes souvent sax bëgg naa nga ñëw si ci nu mu gën a yaatoo mooy mhm. les lunettes en caoutchouc les lunettes de soleil mhm. souvent am na si ñoo xam ne dañ naan c'est pas bon c'est l'occasion non c'est-à-dire lunette dafay poser d'abord benn problème lunette dispositif médical c'est-à-dire que dañuy dimbali bët dafay gis mais dafay gis ci ay loi physique yi ñuy wax loi de loi physique mhm. circulation lumière nit ci am na ñoo xam ne dañuy juddu wala dañ ko am ay défaut de de de de de seen bët day ay défaut optique ñun moom lañ tuddee vice de réfraction mm-hmm. mooy li ngay dégg ñu naan la myopie waaye li ngay dégg ñu naan la hypermétrope wala dafa am astigmatisme mm-hmm. dañ koy corriger par des lunettes mm-hmm. kooku moom mooy euh, soxla euh, lunettes soleil lunette de soleil ci wër normalement dafa war a am lu ñuy wax filtre ultraviolet parce que seetlu nañ ne lumière bleue bu soleil bi lumière bleue partie bleue biy jógee soleil am na ci ay onde yoo xam ne en fait baaxul ci bët moom la ñuy wax les les les les les ultraviolets. ultraviolets. Mm. théoriquement lunette de soleil yi dañ ko war a filtrer. mais bari na ci lunette de soleil yoo xam ne. Ah, en réalité amuñu filtre ultraviolet. voilà dañuy jël rek. <laughs> esthétique bi la ñuy gën tente ko nga sol ko alors tu crois te protéger alors que tu n'es tu n'es pas en c'est ça un peu le danger. des des lunettes. Mm-hmm. donc su ma mën mënee comprendre mooy ne lunette boo mm-hmm. demee bay takk lunette dafa war a doon yoo xam ne nii euh, yu ñuy saytu la médicalement soit mu ay photogré wala lu ca aju. ñu takk ko mais du doon comme ni ko ay Aïcha di defee rek dem ca marché ba jënd lunette u 1000 <laughs> francs <laughs> euh, takk di dosé su dee su dee lunette de de de de de su la kooku moom vraiment je me prononce ci nekk am nga noo. Mm-hmm. mais su dee lunette de correction la. Euh, danger bi gën a am mooy ñi nga xam ne dañuy dem natt ay lunettes. Hmm. après dem seen yoon. jëm hmm. jënd seen lunette 1000 francs 2000 francs dem seen yoon. xëy na réew mi nu mu demee contre ñu loolu sax parce que hmm. lunettes yi aussi c'est pas donné. ay lunettes yu 400000 200000 300000 ce n'est pas donné. ne nit yàlla dafa def ne à partir d'un certain âge forcément da ngay am problème mu lecture. à partir de 40 ans. jëm cinquante ans soixante ans xool bu jege bi dalay jafe liir. Mm-hmm. parce que képp koo gis moo am cinquante ans soixante ans di liir te takkul lunette kooku dafa feebar. Ah ah ko dafa feebar après naa ci dellu si waat. Mm-hmm. c'est obligatoire à partir d'un certain âge. Mm-hmm. nga war a takk lunette pour liir. Mm. mais gis nga boo demee ci docteur bi. Mm. bu la saytoo pour bindal la lunette yi mën na fekk ci yow yenn feebar yoo xam ne mën nañ koo commencé faj moo gën nga dem dellu si ñaari at ñetti at alors que yaa ngi feebar yu mel ne li ñu doon wax sax gula ko seul problème bi loolu fi muy indi mooy kan boo ko defee da ngay rater opportunité pour ñu dépister la yooyu maladie mm-hmm. Mm-hmm. te en général feebaru bët yi buy egg ci yenn yi souvent on ne peut pas on ne peut plus récupérer gis nga ba ñuy wax glaucomate yi gis nga faj bi faj bi pour li fi des mën fi yàgg rek la mhm. mais li nga ñàkk moom kenn mënu ko dab mhm. donc c'est un peu ça la la la éduquer les gens pour man moo ne bon am na ay raisons sociales qui font que les gens peuvent ne pas toujours acheter des lunettes ci ci ci ci opticien yi mais au moins nañu def seen check-up ba ñu leen yow lii nga soxla ñu dem wuti ko feneen su fekkee ne loolu mën na nekk mu am yeneen yu ñuy faral di nemmeeku mooy surtout nag suñ mbokk jigéen ñi dañ koy faral di def euh, sur le plan esthétique mooy les lentilles et les collyres mhm. loolu tey jii waaw euh, yi ñuy def collyres bleu yi mhm. euh, en général dañ ko def pour weexal bët mhm. mais malheureusement li ñuy wax ay blé de méthylène la ay substance chimique la soo gisee ku ko yàgg def dina am ay taches yu ñuul ci bët yi yoo xam ne ça devient indélébile mm-hmm. parce que dafay accumuler pigment boobu te loolu du du la du la arrangé parce que day indi seulement vaso li ñuy wax vasoconstriction provisoire le temps bët yi weex après bët yi day dellu boo koy def ngay koy seetlu ñu koy def bu weexee léegi bu ci kanamee ci lay gën a ti xonq avant ngay doon def kii bi mm-hmm. parce que bu effet euh, kii bi dañee day amaat li ñuy wax vasodilatation du lu ñuy euh, conseiller souvent mm, euh, nit ñi di ko def c'est vrai que c'est à des trucs esthétiques par contre li ñuy gën a ragal par exemple c'est man personnellement mooy accident yi nga xam ne day am avec les poses de cils mm-hmm. on utilise de la colle du nekkul lu exceptionnel nga gis malade bu ñëw ak une brûlure cornée parce que col bi dafa rëcc dugg ci bët bi et cetera yàlla rek a xam. quelquefois après léegi sax c'est plus poussé hein, parce que on utilise maintenant des extensions. maanaam extension yoo xam ne dañuy jël cils par cils di ajouter. oui mais c'est que souvent là là là où on les fait en mhm. général dans les pays développés il y a des garanties en termes de sécurité dans ce que nous faisons. parce qu'il y en a dans les cheveux on te les, les, la calvitie là. Oui. Les Turcs sont célèbres pour ça. Oui. C'est poil par poil qu'on te réimplante. Dañ koy mais condition yi sous microscope dans un climat hospitalier et cetera y a pas de souci li bon kay de façon artisanale. Mhm. en utilisant des outils euh, de qualité douteuse et surtout d'asepsie très mhm. douteuse. c'est ça. euh, lentilles utilisées si c'est des lentilles à visée esthétique je ne vois pas tellement lay des mm-hmm. parce que lentille dafa laaj une certaine mm-hmm. discipline mm-hmm. pour utiliser ko lentille da nga ko war a tindi plonger dans de l'eau lentille dafa am noo ko toppatoo surtout suñu environnement bi nga xam ne tu beaucoup de poussière tu as beaucoup de trucs en général mën na incrusté wu diggante lentille bi ak ki la ay problème parce que amul dara dara lu gën a jafe faj bu fekkee ne da nga problème mu cornée ci kaw ay lentilles. ça souvent ça aboutit à la catastrophe loolu nit ñi dañ ko war a xam rek. jël seen disposition en termes de discipline. Euh, pour pour pour pour seen poru lentille. Mhm. mais quelquefois c'est mieux parce qu'il y des gens parce que lentille à l'origine dafay remplacer lunette. waaw c'est optique. c'est optique y a des gens qui ne peuvent pas porter des lunettes. On mhm. les met des lentilles pour ñu mën a wala des gens en fonction de leur préoccupation de leur occupation. du mhm. ñu mën a sol ay lunettes un footballeur. Mhm. ñëpp ne peut pas porter des des, des lunettes sur le terrain il faut des lentilles mais quelquefois d'ailleurs day ce qui arrive lentille bi dafay. au cours d'un choc mën na bi dafa mu jékki mais au départ c'était un peu ça. Le dispositif. médical la woon pour régler de, de, mhm. de... mais par rapport ak euh, les gestes à éviter souvent dañuy wax ne euh, di jël sa loxo di ko dugal sa bët ak yeneen ak yeneen tey jii ndax mën nga ñu si baaxee yeneen nga xam ne nii dinañ mooyu feebaru bët loolu c'est déconseillé parce que loxo on munoo wat sa loxo bi set na si mhm. transport des microbes c'est c'est impossible gis nga loolu mooy gën a indi euh, diffusion maladie bu amee lu mel ne épidémie Apollo par exemple mhm. parce qu'en réalité on ne sait pas trop ce qu'on a fait boo gisee nit bët yi xonq bon y a reflex petits réflexes quelquefois sa bët xaw a mhm. caf caf caf nga fekk ni nga nuyoo xëy na sax nuyuwuloo ko woon mais waa ji bunt bi mu jàppoon pour muy dem bàyyi fa germe yi nga ñëw jàppaat poignée bunt bi mhm. tibb ci germe yi dugalaat ko sa bët c'est pas mhm. donc loolu la loxo warul dem ci bët sa que je dis souvent patient su dee da nga bëgg kii dam ngay tiim soropi da nga ak sa saabu nga raxasu ba mu set ba sa loxo set la toxuñ ba mu neex la <laughs> après nga raxasu woon dem Mm-hmm. tu vois mm-hmm. mais éviter de mettre la main au niveau du pied mm-hmm. ça c'est des choses yoo xam dañ ko war di moytu wala sa mouchoir comme nii madame yore je savoir que sa sa bët euh, bu la yàlla mayee ngay xool xewal la xewal nag dañ koy war di sàmm comme ni ma ko waxee dafa am ay jiir ak ay jamono yoo xam ne dans la vie nen nit ki da nga war a dem saytu même su dee yëguloo dara nit ki bu amee à part de quarante ans cinquante ans war na di saytu bëtam même bu demee ñu ne ko amuloo dara xëy na docteur bi ne ko bon fii léegi deux ans trois ans nga dellu si waat parce que mm-hmm. amuloo dara c'est ça veut que y a mm-hmm. les yeux amuloo risque glaucome amuloo risque dégénérescence maculaire y a rien mm-hmm. ñu defal la sa correction nga dem si problème yooyu c'est vrai que nag dans des pays réew yu mel na suñu réew yi c'est c'est pas évident parce que doo dajeeg spécialiste yi partout pour mën a def loolu te euh, wutal nañu réew anglo-saxon yi nga xam ne dañu ko xaw a décentraliser parce que dañu am ñoom ay corps yoo xam ne ñoo gën a bare médecin ophtalmologiste yi mais ñooñu ñooy toppatoo bët mm. yi souvent les optométristes boo gisee benn médecin di nga am lu mat dix optométristes ñoom ñooy nekk ci koñ yi di xool maladie bu amee problème ñu yónni ci mm. ci ci ci ci médecin yi nit ki daal na nga xam ne bu la yàlla mayee ngay gis mm. c'est très bien te tamit lépp loo seetlu sa bët nga bañ a xaar mm-hmm. nga bañ a xaar as mbir bi daal dafa dafa mel na gisul bon nga bañ di laam-laamee lii la wala lële la. Mhm. demal nga seeti spécialiste dina la wax exactement lan la si c'est grave c'est pas grave. Mhm. mais docteur bëgg naa peut-être ñu revenir un peu ci les les accidents oculaires. Mhm. Ah, Mame Khady parce que dafa bari quand même ñoo xamante ni dañ daan am ay faculté di gis normalement mais après ay oculaire euh, moom mooy tax ñu dem ba dootuñu gisati ci mel ni ay soudure métallique duñu jël les précautions qu'il faut pour mën a mhm. protéger seen bët ñu nga leen di wax loolu laa leen di wax mooy nit ku nekk ak sa activité socio professionnelle mhm. un soudeur buy liggéey te du jël lunette de protection mais est-ce que nous ngay def si danger et souvent ils viennent avec comme vous l'avez dit des bavures à gauche bavures à droite mm-hmm. dina xëy na nag un jour dina ci am bavure boo xam ne day romb dugg et puis ça va créer une catastrophe donc yooyu la c'est-à-dire que y a des mesures globales fi wax yëpp yoo xam ne nit ñi dañ ko war a jël pour mën a protéger wu seen mm-hmm. seen seen ci seen liggéeyukaay ci seen euh, jubukaay mm-hmm. booleeg aussi xam nga tamit bët dafa nekk ñi set tête et cou benn zone bu compliquée. Ouais. donc lépp lu nekk par exemple yem na feebaru bakkan yoo xam ne dañuy am retentissement. ci ci zone ORL bi la nekk. de plus en plus prise en charge mm-hmm. mm-hmm. ci zone les accidents les traumatismes crâniens et tout ça peut impacter suñu. tout à fait des gens yoo xam ne c'est amuñ dara seen bët dañu traumatisme crânien mais gisatuñu parce que. relation yi bët yi am ak cerveau ak tout mm. mënuñu dugg ci détails yi di ko décrire pour dire que tout ce qui arrive rek dañu war a am effectivement pour ñu ci war a giiñ mm-hmm. mais dëgg la nag fekkatu ba di nekkuñu partout mm-hmm. ils sont pas toujours accessibles ça c'est un c'est mm-hmm. un problème couverture. et je pense que am na ay quelques efforts yu ñuy def ba nga xam ne au moins mën nañ ci jot ñenn ñi. Mm-hmm. pour ñu dem di leen demander seen. demander seen avis. Mm-hmm. mais mais mais bu weesoo loolu noonu euh, lu jëm ci euh, li nga xam te moom moo di euh, paj bi prise en charge bi ñu ci bëri bu ñu leen programmer opération sax euh, bët dañuy daw il sont un peu yaakaar ne opération bët lu rëy la mais il faudrait wàccee communication ba ñu xam ne opération bët quand même <laughs> si c'est quelques minutes du dara man fekk am naa occasion fekkee ko c'est c'est vrai c'est-à-dire que euh, lépp mooy li li li ñuy wax waxtaan bi moo tax émission yu mel nii am solo ci ñun sax xam nañ yenn saay boo nee malade boo en parlant de cataracte parce que xëy na boobu c'est on peut mën nañ ko routiniser quoi jaar sa mais il a des interventions oculaires qui peuvent très complexes qui peuvent durer des heures et des heures. bon parce que moo gën a bari sax voilà kooku moom c'est absolument rien. Mhm. doon nañu dem sax bay proposer changer terme au lieu ñu naan dañu lay ñu wut beneen mot parce que moo bi en dix minutes quinze minutes et puis après tu peux partir maintenant c'est en mhm. nga tamit mooy li may wax toujours il faut ñuy waxtaan ak askan wi pour que. parce que dans l'imaginaire populaire bët tuuti na tuutiwaay boo xam ne xel mënul daj ñene da nga koy opérer comme boo tiimee biir wala leneen et quelquefois nit ñi dañu dañu dañu peut dañu xamul mhm. mais toujours dañuy jéem waxtaan ak ñoom pour ñu jéem leen euh, xam ne leen bon lii mën na nekk man damay toog ma laat ñoo ma ne ko non il faut ñu defal la piqûre IVT piqûre ci bët i xel mënu ko daj tu pour ñoom c'est pas possible. Mm-hmm. ah non non non mooy ñuy defee piqûre rek piqûre lañ koy defee ah ñii dañ ciy mm-hmm. piqûre rek la ñuy piqûre ci bët dafa am fu ñuy jaar dafa am lu ñuy utiliser et cetera et cetera euh, donc yooyu yëpp waxtaan la ak euh, askan bi. Mm-hmm. pour ñu xam euh, gën a mën a adhérer. ci médecine moderne bi parce que problème bi mooy en fait euh, y a l'autre forme de médecine aussi. du ma ci def jugement de valeur mais en tout cas si domaine bi ñuy liggéey yu ci bëri dafa bëri ay problèmes. Mhm. et il faut que ñu gérer loolu. Mhm. te maintenant il y a ce. très important. il faut ñu trouver ci solution. Oui, bien sa dafa fay sa micro. Mhm. dafa am benn feebar da ngay gis euh, ci tradipraticiens yi ñenn ñi même ci télé et autres mais dafa am benn feebar boo xam ne day revenir ci seen li ñuy wax ne moom la ñuy faj muy gulo ko mooy lan ak it. <laughs> ak it tamit c'est héréditaire. waaw kay lan moo koy indi. Mhm. voilà c'est une opportunité pour ñu wax ni glaucome. parce que mhm. effectivement de plus en plus c'est une maladie qui qui qui prend de l'ampleur c'est pas que la maladie prenne de l'ampleur mais dafa am euh, ñaari glaucome bu ñu koy résumer ci ñun. ñetti mbir ngay dajale. tension bët bi dafay yéeg. li ñuy wax papille bi altéré wu. li ñuy wax champ visuel bi altéré wu. loolu mooy ñetti mbir yi ñuy dajale ni kii dafa am glaucome. mais li ñu seetlu mooy. glaucome au Sénégal balaa ñu koy découvrir c'est souvent tardif. nit ñi dañuy dem ba mu nekk stade terminal. ñu soog ko gis. loo xam ne dootoo ci mën dara malade bi danaan la damay tuufu damay tuufu mais du ma gis du ma ci gis tan et effectivement boo ko teelul wax ne tuufaay bi du pour li nga ñàkk ci gis nga dabu ko mais pour li fi des ak néew ñu mën ko conserver loolu la parce que glaucome yi problème bi mooy loolu feebar bi du metti du lëndëm boo amee glaucome du metti du lëndëm waaye bis bu commencé lëndëm c' est que presque dara desatu fa. c' est ça le problème. quand si commence voilà c' est vraiment une c' est une tueuse silencieuse extraordinaire jour où tu sens que tu as des problèmes de vision et que ces problèmes là sont liés au glaucome c' que tu as perdu au moins quatre vingt quinze pour cent de tes fibres c' est terminé ah, fini alors dañ koy comparer boo jëlee ñaari bougie nga tàll bougie bi jeex ba nekk taa noonu ak bougie bi bees bi nga taal la flamme et toujours la même. Mm-hmm. flamme bougie bi jeex bu commencé di yëngatu nii c'est terminé. Mm-hmm. en réalité malheureusement c'est ça qui arrive. Mm-hmm. donc le combat c'est plus un dépistage dépistage bi nag précoce. dépistage bi nag am na lu ñu ko mën a yombala parce que waxuñu ne c'est héréditaire. mais on sait que c'est familial dina nekk ci famille. moo tax toujours boo gisee malade bébé nga ne ko bon boo amee sa ay doom say jarbaat sa mbokk sa kii mm-hmm. ñu jéem leen a dépister balaa ñuy toll ni yow ba fii mm-hmm. indiwaat problème bi et a dépisté beaucoup comme ça mm-hmm. maintenant a des pistes beaucoup comme ça. amul loo xam ne da nga koy def pour moytu ko wala. lu koy indi daal des euh, facteurs. de risque. de risque tabagisme et cetera et cetera mais vraiment kenn mënu wax ne exactement. parce que léegi xam nañ ne du sax. dañuy faj tension bi mais ñun xam nañ ne sax du problème bi du rek tension bët bi hmm. mais problème mu nerf la moo tax léegi même définition bi dafa changé <laughs> pour ñun lañ naan neuropathie et cetera xam nañ ne daal nerf bi moom moo am problème mooy yàqu petit à petit hmm. euh, mais ce qui est clair bu ñu koy traité nag mën nañ ko stabiliser hmm. traitement bi ce n'est même pas pour récupérer ce qu'on a perdu comme vision mais c'est juste pour stabiliser les pertes ah moo tax li am ci solo ci glaucome li ñuy wax fan la sa fam sa gis-gis bi toll fan la mhm. yàqu-yàqu yi toll ak mbir mi naka lay progresser parce que nit ku nekk mhm. su amee nit ñi am glaucome seen progression du benn. am na ñoo xam ne dafay gaaw. am na dina yéex am na yoo xam ne stable. tout cas am na solo vraiment on a fait le, le tour hein, mm-hmm. concernant mm-hmm. les maladies oculaires c'est vrai mm-hmm. que waxi bët moom mënuñu ko jeexal. mais li ñu mën mooy cof ci bu ci nekk rek le reste nag mooy askan yi ngeen dem di def ay diagnostic di xool def ay dépistage na say saytu seen bët bu baax a baax ndax jàngoro yu bët lu am lu am la. te bu la dalee nga xam ko parce que boo ñàkkee sa bët quand même ñàkk nga sa dund yëpp. ndax ñàkk gis seconde rek nga xam ne voilà vraiment docteur ñu ngi lay jaajëfal lu baax a baax. maa ngi leen di ngi sant leen gërëm ci opportunité bi. ñoom mhm. mën a waxaat. Mhm. askan mhm. jërëjëf jërëjëf jërëjëf merci ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax alors yow tamit euh, euh, maam Khady sujet bi ngeen di woon tey am na solo vraiment waaw gis nga gis nga macha allah am na solo bu baax a baax a baax def ci baax yi lee ñuy invité ay spécialistes ñuy ñëw di ñu ci génne pour ñu wax ñu lan lañ